asalaamualeykum mbokku senegaal ñi ci biir réew mi ak ñi ci diaspora bi dañu ma wax ni bataaxal bi ma bindoon ci coronavirus bi dafa am ñu ko jotul amit ñu wax ni dégg sama kàddu directement moo leen gënal mbind mi moo tax ma dellusiwaat ci ojo bi di baamtu la ma waxoon ca bataaxal ba te mooy ñaan suñu boroom mu musal leen musal ñu ci jàngoro bi ñi nga xam ni itam jàngoro bi jot na leen a laal suñu boroom saafara ko ba ñu dellu ci seen sago ñaareel bi di ñaan ñépp ñu sàmmoonte ak tegtal yi nga xam ni gouvernement bi ak autorité saniteer yi joxe nañ ko moo xam ci biir réew mi wala ci bitim réew xam nañu ne metti na wante li ñu ci jublu mooy bañ jàngoro bi wasaaroo ba ëpp doole bërëbu fajukaay yi donc tegtal yi metti na wante ñuy ñaax ñépp rekk ñu sàmmoonte ak digle yooyu ba nga xam ni jàngoro bi du wasaaroo wasaaroo bu ëpp ba ëpp doole bërëbu fajukaay yi. ñoo ngi beral yitam cant ak ngërëm suñu mbokk yi nga xam ni ñooy yëngatu yépp ci wérgu yaram dale ko ci médecin yi infirmier yi personnel administratif bi nekk ci loppitaan yi nga xam ni coono bu nekk ñoo ngi koy daj pour euh, jàngoro bi bañ a wasaaroo te ñi nga xam ni itam ñoom la jotalaal ñu toppatoo leen toppatoo bi ci war xam nañu seen coono askan wi yépp amel na leen gërëm ak cant jërëjëf di ñaanit suñu boroom ñi nga xam ni ñoo ngi gëstu ci lu ñu fegoo ci jàngoro bi walla lu ñu ko faje suñu boroom gaaw leen a gindi ba ñu gis ay bunt ak i pexe yoo xam ni danañu mën a fegu ci jàngoro bi muy vaccin walla ñu gis ci ay traitement yoo xam ni dana ko woyofal dana ko mën a saafara di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm di masawu ñëpp coono